partenaire chrétien bi nekk Sénégal amal na forumam bu njëkk ci lu soxal entrepreneuriat thème bi nag mooy ban rôle la entrepreneur chrétien am ci ni ñuy suqalee koom fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo nag ci président association bi Étienne li liñ ci jublu nag mooy ut ay pexe ci ni ñuy amalee insertion ndaw ñi. mais ñun dañuy jàpp ni foog secteur privé local bi mën a développé bu baax développé ci koom-koom développé ci ci kattan développé aussi ci création boo xam ni conditions yi la ñuy favorable ndaw yi am liggéey dëkk bi am koom ñëpp a mën ci gën ñëpp a gis seen bopp waaye dañ ko bëgg laal tamit lal ci éthique ak déontologie maanaam la pensée chrétienne maanaam suñu xam-xam bu xam dañ ko wér ci diine entrepreneur ak cadre catholique bokk ci secteur privé fas yéene nañ gunge groupe Sénégal ci politique bu mu tekk ngir utal ndaw ñi xëy. parce que ñu ngi jëm ci pétrole ak gaz suñu ndaw yi xamuñu ne am na benn pàcc yu rëy am ci biir yoo xam ne comme liggéey buñ leen tàggatee wan leen lu am ci biir te dina gën a orienté utum liggéey bi domaine boobu dafa am ay sous-métiers ci biir yoo xam ne ñu informé leen pour ñu xam loolu la ak ndaw jeunes yi comment organiser sa comment créer des condition favorables ak yooyu yëpp. ci jamono boo xam ni ndaw ñi dañuy jànkoonteel ay jafe-jafe association cadre catholique dafa jug ngir jàppale leen ñu am ay saafara ci seen i jafe-jafe. waaye jàpp nañu Sénégal am na ay pexe dëkk boo xam ni am na am na am na am na pexe mbirum économie am na am na ressource humaine am na ressource gazière et pétrolière ci yoon war nañ ci mën jamono yi métti na fa ñu toog gën a waxtaan xool jumtuwaay xool pexe jéem a suñu suñu suñu pexe ci njeexital bi le nag dina am ab mémorandum bu ñu séddale ci entreprise yi nekk ci biir réew mi association cadre chrétien dafa jóg ngir dugal loxoom ci bépp secteur boo xam ni day indil ndaw ñi xëy dinañ teg ay jumtukaay yoo xam ni ndaw ñi kottu lañ ko la